alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi wal aqibatu littaqwa wasalaatu wasalaamu ala xabibillahi wa rasulihi sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi nuyu mbokk samoon yépp di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla mi am jàmm ak salaam ak sutura yàlla nañ ko yàlla defal àddina ak àllaaxira tey xel dalatina ndax seen maam góor ga ca bonekaare ba Seydi Aboubacar Sy Serigne Babacar Sy defe naa ni mooy bàyyi Serigne Abdoul Aziz Al ñu ñaanal ko yàlla na fi yàgg ànd ak wér ànd ak tal moom Serigne Abdoul Aziz Al Amin ba li mu bëgg yépp ci réew mi ci diine gi ci mbokk gi yal na ko yàlla mottalil baayam bi moo doon wax baayam bu tedd ba boroom may ya ngënk ma Seydi Aboubacar Cheikh Al Khalifa nee na mbooloo bu ay ndaw dong dong dong nekk man Babacar awma ci yaakaar mbooloo mu may ay mag dong dong dong nekk man Babacar awma ci yaakaar mbooloo kañ day doon ay mag ak ay ndaw xali Ousmane tafsir yëg nga ni mag bu fonkee xale xale baa baax waaye xale bu ormaalee mag mag maa yiw xale day baax mag fonk ko mag day yiw xale ormal ko yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dugg ci wax ci ni man akrama cheikhan li sinnihi qayada allahu man yukrimuhu jazaan mifaqa kon fii réewu mag la maam iliman saaxu radiallahu anhu jur fi jant bu toll ni alxaaji ibrahima saaxu ñu ci profité di nuyu mboolem njabootam di nuyu tafsir saaxu waaye di nuyu itam xalifaam sëriñ habib saaxu ñoom ilimaan saaxu sëriñ bay saaxu ñoom seega saaxu ñépp ñoo xamante ni ba ci Medina Sakho sama jigéen joojule ñu ngi leen di ziyaara bu baax suñ ko jaaralee ci ñoom nag mu yóbbuwale nag mboolem nitu diine yépp ndax kat moom cheikh al islam la woon moom kan moom alxaaji Ibrahima Sakho te li mu mënoon benn ci kaw suuf bu nu bu mu duggee biir suuf la ko gën a mën ahlu saadati fa la bokk te ahlu saadati naaimatun baaqiatun ila yawmi alqiyamati radiallahu taala anhu yàlla nañ ko yàlla fayal man duma yàgg ci kàddu gi di jéggalu nag ci tardement bi ni ko tafsir waxee waaye li ñu tardé tardé kenn demul ñépp a ngi toog gis nga tafsir lii yépp cofeel la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii seen diine daleen ñor bëgg gi ñu bëgg yonent bi dafay dëgg ci ñoom gis nga wax dëgg yomb na wax dëgg yomb waaye Moussa Bey xam nga lu jafe dëggu dëggu moo jafe yàlla nañ ko yàlla defal ndekete yàlla ñetti mbir la sàkk yéene jëf ak ndogal ni nit tànnal ñaar ma tànn benn nit ci gàtt xelam tànn yéene tànn jëf yàlla ne tànn naa ndogal moo tax nit dina yéene jóg di def waaye yàlla mooy dogal kon nañu nangu ndogalu suñu borom rek bu boobaa ñu noppalu waaye jigéen ñi kontaan nañu maa ngi jaar ci yéen Adja Amsatou Gueye maa ngi lay nuyu di la ziyaara waaye maa ngi jaar ci yéen di delluwaat di joxe benn exemple benn jigéen bu ko defee jigéenu àddina bi yépp rawatina jigéenu jullit ñi ñu xoolaat foofu exemple dafa am ci buuru démb yi buur bu sàggan bokkoon ci buur yu sàggan yi gis nga diggante Palestine jordani Irak Iran jàpp dëkk yooyu yépp moo ko yilifoon moom lañ doon wax umaraul ajnaad puissance économique am foo ko natt wees na ko alalam foo ko nattu wees na ko armem am na puissance boo xamante ni foo ko nattu wees na ko ñépp wekk ko mais nag malheureusement dafa bokkoon ci buur yu sàggan yi benn bis muy féexlu moom Maamun muy féexlu ci balcon wam seen benn jongoma buy sangu mbooloo mi waxuma jigéen de jongoma laa wax xale bu ndaw bu jigéen jigéen la màgget bu xobidaas bu jigéen jigéen la waaye Abdallah Fall su ma nee jongoma mooy ku góor di xool am ci moom soxla mu seen ko ca tàkkal dex ga mooy ca tefes ba muy sangu taar ba nag foo ko nattu wees na ko moom ndaw si buur bëtam tege ci moom munu koo muñ mu fettasu kenn ci bëkk nekki daw génn mu ne ko jongoma ma jëlee di sangu kan la mu ne ko kee jabaru fay Fayruuz la fay Fayruuz sa surga yi nekk ci pale bi yor bale beeg fomp bi kooku jabaram la safra lañ koy wax xanaa buñ la nee jabaru jàmbur la xanaa nag bu dee nag danga màndu nag ànd ak ragal yàlla nag pare nga ci nag waaye munu koo muñ wàcc ci suuf ne secrétariat bi tàppal ba benn lettre woolu xale bi mu ñëw moom fay ruuse ne ko gërëm naa sa nekk gis sa yar gis sa teggin gis sa comportement ci liggéey bi moo tax ma woolu la yëkkati mission bi jox la ko dama bëgg nga yóbbul ma lettre bi ñaata nga doon fayeeku mu ne ko soixante-dix mille mu ne ko def naa ko sept cent mille nommé naa la ambassadeur itinérant yemuma ca dinaa la jox ngawar muy monture gawar mooy kay war ngawar mooy la muy war xale bi xool ni mbagg yi oyofee ak buur fi mu yegg buur woo ko dénk commission bu toll ni émotion bi jàpp ko mu dem waxtaan ak soxnaam nettali soxnaam di ko dal soxna si ne ko nijaay lii du dara lii teeñ bi la rek yéen bi ñëwagul lii ñëw a dàq foofu di yaay ni nga baaxee nangoo liggéey di tuur sa ñaq di rawale sa ngor di rawale sa diine nijaay loo mës a am bokk nga ko sa njaboot billaahi nijaay lii du dara lii ñëway dàq fuuf da nga lu baax lu ne xolam sedd mu ñaanalanteeg soxna si sañse génn bu muy génn nag dafa fàtte ordre de mission bi lettre bi daf ko fàtte ci tenue de travail bi yàkkamti ndax buur a ko yónni mu yàkkamti yéeg fasam rëppatal dem ñu dem ba guddi gi xóot buur maske wu ne tëll kër soxna si fëgg soxna si ne man bil bi ane ku ne ci bunt bi mu ne ko anal maliku man la buur soxna si tiit ubbi bunt bi di lox di pat yaakaar ni dafa am lu dal jëkkëram ndax jëkkëram wax na ak moom xam na ni buur a ko yónni mu yaakaar ni band yee ko koj walla mu accidenté ndax buur du ñëw kër jàmbur rawatina guddi muy pat-pati mu ne ko dalal dara dalul sa jëkkër maa ko yónni dama ñëw pour wan la ni sa jëkkër sama surga la maa ko yebal te buur bu yónnee surgaam fu mu ko wutu gën ko fa bëgg summi manto yi waaye xoolal bii soxna safra safra Cheikh mar boo demee këram Cheikh marul Fuuti saaxibu rimaaxi borom Banjagara nga xam ne nee na goxi asamaan ak goxi suuf xaw ma ban laa ci gën a miin moom maamu Cerno Muntaqa Ahmed Muntaqa Cheikh Umarul Fouti boo demee ci njabootam danga fa fekk safara ndeysaan mu ne ko buur baal ma baal ma toogal nii bul toog ci lal bi baal ma toogal ci fauteuil bi ma nettali la dara lu ngeen ciy jànge mbokk yi sa lalu jëkkër ak ku mu mën a doon waru ci toog baal ma toogal nii ci fauteuil bi bul toog ci lal bi ma nettali la dara buur toog mu ne ko buur dafa am ci góoru démb yi bu mus a xool soxnaam ne ko bëccëgu tey sa atruku maakum min gayri wirdin wa zaaka li kasrati lwuraadi fiihi bëccëgu tey gedd naa dootuma root ci sa ndoxum teen gedd naa dootuma root ci sa ndoxum teen ndax kat subbanti baak yi dal ci ndox mi su bënti yu bari yi dal ci ndox mi nëxal na sa ndoxum teen moo tax gedd naa ko dootuma root ci sa ndoxum teen dégg ngeen wax ci Sénégal foog ñu delloo si waat waxu yar waxu teggin or ma wodd wax ci mu ne ko naa jël boobu teg fee waaye buur dama ne ida saqata zubaabu ala taamin rafatu yadi wa nafsi tashtahihi waaye wa tajtanibul usuudu wuruda maa in ida kaana alkilaabu wa lagna fiihi waaye wa yartajiu alkarimu xamiisa daqnin wala yarda musaaxamata safi i buur boo jëlee ndabal soow mu am miskatda am philodranche nga yëkkati bëgg naan gis ay weñ yu bari tag ci xanaa loo xemmem xemmem soow bi sib ko mu ne waaw mu ne noo koy def mu ne ko xanaa tuur yi mu ne ko benn ñaar buur yaakaaroo gaynde ci noblesse gaynde ci njàmbaaram gaynde ci am fitam ak mën fàddam rafet doxinam moom ba ñëpp d'accord ki ne ko yaay buuru àll bi moom gaynde warul ëppale boppam fekk ndabal xaj xaj ba lekk ñu def ko fa séeñit ci muy ñëw di xëccoog moom séeñit ci gaynde warul ëppale loolu boppam mu ne ko ahakañ mu ne ko ñaar ñett mu ne ko buur koo xamante ni mu ngi ànd ak xelam ànd ak sagoom seen ña seen xel wëtti seen xel dem excusez-moi du dof nekk ca ca ñamu njaxas ya yow mi ànd ak sa sago sa xel di teey ngay wàccu te kee du wàccu ndax lii tey ci moom moo paan yow ngay waccu di seexlu yow waroo ëppale sa bopp dem ca sën ba di xëccoog ñoom ñamu njaxas ya mu ne ko ahakañ mu ne ko kon jógal dem jógal buur jóg mu frappé porte bi buur wàññeeku kaala gi daanu ci couloiru kër gi mu dem xam nga lan bukki bu dabee ponkal ca doxin ba la góor ñi ñu mel tey jigéen ñi da ngeen ci am part de responsabilité xoolal bi jigéen sans égal en beauté et en perfection taaram ak kersam mbaaxam ak yiwam fegoom waaye finesam buur dem wàññeeku na au même moment Fayrouz rendre compte nekkate hors de mission bi da ko fàtte ci tenue de travail ba mënul dugg ci dëkk bi te yóbbuwaale wu ko kon lu muy def il faut mu dellu siwaat ba ngay topp guddi gi di daw drapeau baa ngay flotté ngënk ba ca Tiwaawan nee na saw fa tara isan jalal xubaaru afarashun taxtaka am ximaaru abdallah nee na bu njàpp yàggee gawar feeñ te naaru góor gawar piir a koy war bu ñu demee ba pënd ba wuri dañu xam ku war fas ku war mbaam mu topp ba guddi gi ba fajar gi xar mu yegg si tafsir dafa ubbi couloir bi seen lu ñuul mu yaakaar ni jaan la bocc jaase bi taal torche bi xool gis ni yu daan kol la mu yëkkati kol bi seen ci tampon royal bi xàmmee kol bi gis ni lii ci metteelu buur la tàmm na gis ni buur moo tàmm di ràngoo kol bi ci metteelu buur la njortam ñaaw nit rekk la njortam ñaaw mu ni ah, buur lii la ma naraloon yokk sama salaire ambassadeur itinérant defal ma lii yëpp ndekete lii la ma buur naraloon njortam ñaaw seen bàyyi seen maam Cheybat Alhamdi Cheikh Alhaaji Abdul Aziz Sy dama dégg benn waykat di ko way ci marsiyam ba tafsir mu naan ko laqad xaaba bahrun aylamun mutawarriun waa jooju daal man qawluhu wal fi'lu yastawiyaani bàyyu xaaj Malick si Maodo nee na bu jamono leeree na ñépp rafet njort waaye bu jamono lëndëmee na ku ne sa bopp bu jamono neexee leer nañ ku ñaaw njortu bokkuloo waaye bu jamono lëndëmee na ku ne fekk sa bopp njortam ñaaw mu làq kol bi fëgg soxna si ubbi mu ne ko baal ma ordre mission bi laa fàtte ci sama tenue de travail te mënumaa dugg ci dëkk bi te yóbbuwaalewu ma ko xoolal dama dem ba ci buntu dëkk bi laa ko doog a fàttaliku topp guddi gi yépp ba fajar gi xar baal ma rek jottali ma ko soxna si ne yegg si mu ne ko ëpp def baal ma rek jottali ma ko soxna si jox ko ko mu ne ko boo xëyee suba ba julli fajar julli sa suba ndekki ba suur nga dem sa kër papa toog fa xaar ma fa bul ñëw nag tànk jël siw ba la soxna si ne ko d'accord soxna si fay def loolu moom mu dem quinze jours après mu ñibbisi ñu teg yeneen fukki fan ak juróom demul yónneewul góor gi yónnee ca moom ne dem leen ne Fayrouz mu ñëw jël si jabaram soxnaam Safra mu ngi koy xaar moo ko ne woon na ñëw toog ci kër gi xaar ko tànk jël si ko bu mu ñëw ñëwul yónneewul na ñëw jël si soxnaam mu ngi koy xaar ñu wax ko ko mu tànqamlu yëf yi demaat weer mu yónnee waat ca mu wax ko ko mu tànqamlu ñu demaat beneen weer papay safra yónnee waat ca mu tànqamlu mu jël ko yóbbu ko ci xood yi le xood yi intellectuel yi le kat yi la ñuy wax mooy ki nga xamante ni mooy àtte ci tribunal l'islam le xood yi mu yóbbu ko ci xood yi booba looloo xewoon boo demee ba xamatoo looy def danga koy yóbbu ci xood lu xood yi jëfe ko fa lay yombee jouru procès bi nag dama ne lii Sénégal yëpp war nañ ci jàngatal borom bayaa day jàngale nee na qadi yi ngi toog procureur substitut procureur avocat yella yoo assemblée bi yëpp toog comme nii fay rouge a ngi taxaw papay safraa ngi taxaw waaye naka jëkk fu qaadi yi toog di àtte buur day fegook moom borom bayaan a ngay jàngale naan wa fuhima min al mantuqi mafahima al qawli xoolal ñi seen tëdd nga ak seen kersa ak nu ñu mën ay wax xaadi ne góor gi yaa fi indi plainte bi mu ne ko waaw mu ne ko luy sa kàddu mu ne ko ah xaadi man de dama am sama tool bu baax yanj lool mucc ayib lool bari meññeef lool ñëpp bëgg tool bi ñëpp bëgg ma dénk leen tool bi ku ne ñëw nii dafa sawar a sonn ci tool bi fay Fayrouz mi bokk ci ñu bëggoon ma dénkoon leen tool bi lu ñuy wax may koo yéene jaay ko am njëg dénkaan koo wóolu ma yéene ko wóolu ko dénk ko tool bi mu di ci sonn ba jëmmi jamono mu won gannaaw tool bi dele sa tool bi ba xaw tikkoon tuuti tool bi yàqu yaxeet ma jéem dabaatal mu të ma jéemaat mu të mooy yónnee yi ma doon yónnee ndaw ma jéemaat mu të moo waral ma indi ko fii waaye billaahi bëggeewu ma ko woon nii lu tax ma indi ko fii nag dama ko fi indi pour xam ndax dafa bëggatul tool bi wala dafa bëggatul sonn ci tool bi ma xam man mi ko dénkoon tool bi nan laay def ak tool bi gis nga goro ni mu war a taxawee mu ne ko Fayruuz mu ne ko labbayka mu ne ko dégg góor gi wax mu ne ko waaw mu ne ko luy sa kàddu mu ne ko qaadi góor gi wax na dëgg waaye billaahi tey laa gën a bëgg tool bi tey laa gën a bëgg sontu ci tool bi bàyyiwuma tool bi maa taraktul bustaana karahatan fii innama jitu yowma min al ayaami fa wajadtu athara al asadi fa axaafu an yaxtaalani taraktu lbustaana taaziman wala takriman lil asadi mu ne ko tey laa gën a bëgg tool bi tey laa gën a bëgg sonn ci tool bi mais dafa am lu ma dal ci tool bi dama xëy bis ci bis yi jëm si ci tool bi ñëw ba jub buntu tool bi gis tànki gaynde ma topp tànk yi gis ni gaynde gi dugg na ci biir tool bi alors ragal gaynde bañ gaynde fàdd ma jox cër gaynde moo tax ma wan gannaaw tool bi waaye billaahi tey laa gën a bëgg tool bi tey laa gën a bëgg sonn ci tool bi lii moo ma dal ci tool bi dégg nga bii wax no mbooloo mi réer nañu xaat yi nag moo gën a réer ñëpp ndax moom ñaari nit yu am problème kii di ko waxu tool kii di ko waxu gaynde xamul lu xew góor gi indi façon waxit mbii waaye xale bi nekk xale bu ñu yar la wax na wax goo xamante ni góor gi ci boppam réer na ndax lan ja doomam nettaliwu ko lu xew gis nga secret foog ñu delloo si waat ko loo bañ mu siiw bu ko wax noppi waaye kii de sama xarit mënuma koo nëbb dara ma wax ko kàbb kàbb dama wax ko sulay sulay wax ko kii mu siiw ni faatiha secret foog ñu delloo si nit ñi foog ñu am bàmmeelu biir nañ ko delloo si wat ah buur nag xam ni lépp moom la moom moom moo ko taal moo ko mën a fay buur keroog la jóg ne qaadi may ma lii doo ko àtte mbaa koy àtte jóg taxaw ne ko yaa fayruuz irjia ila bustaanika aminan mutmainan dëgg la inna al asada daxala al bustaan waaye walam yusir fihi cheyan mu ne ko fayruuz billaahi wallaahi tallaahi maa lay giiñal su ma waxee mu yegg yàlla la neex yàlla nag laa doxal sama diggante ak yow muy suñu seede maa la yilif yilif mbooloo mi duma fen dëgg laa wax dama ne dellul nga récupérer sa tool xam ni am nga tool bu baax am nga tool bu mucc ayib dëgg la gaynde dugg na ci biir tool bi mais ci càgganteem la fa duggee mais billaahi jotu faa yàq dara mu ne ko xam nga lu taxam mu ne ko déedéet mu ne ko ñaggu tool baa baax téere yi nee nañu buur boobu li des ci dundam soxna ci soppi na ko soppi goo xamante ni dafa gouverner ci mbaax ci yiw ci màndu ba boolem citoyen yi gis nañu seen àq ak seen yelleef muy mag ak ndaw góor ak jigéen gis nañ ko ci nguuram ba ñépp a doon ñaan yàlla mu yàggoon ci kaw suuf te bu mu génnee àddina ñépp a ko jooy waaye xoolal bii jigéen <laughs> seen maam sëñ bamba xaadim rasul nee na wa zawjatan saalihatan tuiinu ala tuqaa wal birru yaa muiinu nee na jabar ju baax gàllaaj la ngànnaay la waaye yàlla na ñëpp baax waaye ndaw si jur na ay rijaalullahi ay sëtam peste daan na dugg ci dëkk bi ñu jël sëtu soxna si mu mu ñaan yàlla jëlee ko fa ay nitu yàlla rek la jur waaye xoolal bii Fayruuz xale bi xam nga lan la am pièce à conviction metteelu buur la téye pièce à conviction mais mosu koo brandir xoolal du loo xam wax ko du loo mën def ko toog ak sa nawle gor di ko enristre toog ak sa nawle gor ngeen di wax séq ngeen ko nga di ko haut-parleur pour nee ngaay da ngay won kii ni kii du dara loolu mooy lan enregistré gor yooyu yëpp il faut mu dellu si waat sutura valeur yi yàlla nañu yàlla dimbali tafsir dama doon fëgg bunt bi rek waaye yow yaay ubbi wax ñu li ci biir tey guddi guddi yonent bi la waaye waa Somone yépp bég nañu kontaan nañu ñu ngi delluwaat di ndokkeel bu baax Adja Zeynabu Dukure moom Serigne Babacar si bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg lislaam bi yàlla na ko yàlla bëggal boppam te yàlla bëgg na ko mook borom këram ak njabootam delluwaat di ndokkeel waa 2STV yi di ndokkeel Sénégal yépp fa tabarakallahu somon tey kontaan nañu ci yar gi ci teggin gi ci mbaax bi ci discipline bi ñépp war ko roy incha allahu taala bii di ñëw ñu war a jubali ngay mexe ba ca topp ñu war a baa mbay bi su korité bi nag ñu war a dem géejawaay nii mu mel nii nii mu discipliné nii nii lañ ko bëggee fépp kon tafsir abdourahman yaa ngoog somona ngoog ñu ngi ñaan yàlla yàlla fekk sa fan yàlla aar la yàlla wattu la def nga ñetti sacrifice yi li ma ko waxee sacrifice de temps sacrifice de sang sacrifice de bien loo am jox nga ko lislaam loo mën defal nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yow yonent bi moo la garantil boppam ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di féddali ci turu ali beyti muxtaar yépp ci turu l'islam bi yëpp ci turu réew mi yëpp ñëpp lay béggee ndax lan ni ñuy béggalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu di la ziyaara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barakallahu macha allah ay dara barakallah jërëjëf ay dara. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi wa man waalaa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk yi daje fii ci Somone joge fune mbuur sali gis naa fi imaamam fa tabaarakallaahu nga paru ak Petit Côte bi yépp ba ngee xoox ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi Chérif Maami Haydara ak mbooleem ñi ne ci gox bi te bokk ci aalu bayti nabi seedeel leen ni guddi gi fa tabaarakallaahu 2STV ñoo leen ko may fii ci Somone ànd ak Chérif Maami Haydara ak équipe bi ñu àndal yépp macha allah di équipe bu 2S ànd ak alxaaji Abdallahi Fall ànd ak alxaaji Moussa Gaye ànd fa tabaarakallaahu ak tàggkat yonent bi yépp waaye ànd ak seen ay sponsor yi nga xam ni ñooy dimbali émission bi ngir mu mën a réaliser li mu bëgg a réaliser gis ngeen sponsor yépp fa tabaarakallaahu ku ci def sa dërëm yàlla na ko yàlla yokk bépp boîte buy jël dërëmam di sponsoriser wàllu diine ji ak télé bu mu mënti doon baa xew-xew bu mu mënti doon te doon diine yal na yàlla yokk boîte ba yal na yàlla defal leen promotion ba la ñuy séentu ci bénéfice yàlla defal leen ko mbokk yi tey li ñuy waxtaane mooy ngëm yàlla ndaxte boo déggee li Chérif wax léegi ci buur boobu ñuy wax Fayruuz ak soxna soosu ñuy wax Safra li nga ciy jànge ci waxtaanu Chérif mooy dafa mel ni safra dafa amoon ak ngëm yàlla ndax lan maa yakunu min najwa salaasatin illa huwa raabiuhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum bu safra gëmul woon ni suñu borom ne ñaar ñu man yàlla maa ngi leen ñetteel ñett ñu wéet ñu ne man yàlla maa ngi leen ñeenteel ñeent ñu wéet ñu ne man yàlla maa ngi leen juróomeel ba nu mu toll rek lim bi daal nu mu mënti toll suñu borom lu ngeen am ci lim rek teg leen ma ci man yàlla bu safraa gëmul woon loolu buur bu fëgg sa kër xaaju guddi ñëw ni la maa yónni sama surga te buur fu mu yónni surgaam gën ko fa boo jëlul woon yàlla teg ko ci sa kanam àdduna tukki kon al imaanu billahi ngëm yàlla ngëm bu ñu ko waxee fokk kenn ku ne ci ñun yii may bëgg a wax bu bala ma koy daaneel di dugg ci yonent bi sallallahu alayhi kenn ku ne ci yow na dugg ruq ana man la kan nga xool ndax gëm ngaam am gëmoo man ñemewu maa xool nit naan ko gëmoo ndax dafa am yu nekk ci ngëm yoo xam ni ku mënul àgg foofa manoo xam nit ku gëm ak ku gëmul ngëm yàlla bu ñu ko waxee nutqun bil lisaani la wa atiqaadun fil qalbi wa amalun bil jawaarih ngëm yàlla mooy lan lu làmmi ñu koy tudd loolu yomb na léegi bu ma ni woon ku gëm yàlla ñépp jóg ndax boo ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kenn ñi mewu laa wax gëmoo kon ngëm yàlla d'abord làmmiñ da koy tudd lislaam nee na boo nekkoon ci xeex ci jihaad fi sabilillahi xàmmee benn yéefër dàq ko ba mu daw nga di ko topp di ko topp ba mu dugg ci ab nga fekk ko fa génne sa jaasi bu nee laa ilaha illallah amatoo droit dóor ko dereetam ñoŋ na deretam protégé wu na ngir lan baatu laa ilaha illallah kon kaddu bu ñaareel bi la mooy ngëm yàlla gannaaw bu ko làmmiñ wi tuddee ba pare ngëm yàlla bu ko làmmiñ bi tuddee ba pare xol bi da koy fas loolu nag xol la moo tax kenn ñemewu la xool nit ni ko maa la gën a gëm déedéet damay wax ni CD bu ñu filmer dugal ko ci lecteur amul écran bu koy wane fekke ba ñu koy filmer ka ko filmé waxula la ca loo ca wax dangaa ñeme yàlla waaye xamoo ca tus loolooy ngëm yàlla suñu boroom subhanahu wa taala ne inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a baax ci mooy ki gën a ragal yàlla ragal yàlla mooy lan ngëm yàlla mooy imtisaalul awaamir jëfe ay ndigalam wajtinaabu nawaayi bàyyi ay tereem kon ngëm yàlla gannaaw bi ko làmmiñ tuddee xol bi da koy fas kenn ku ne ci ñun xoolal sa xol yi may bëgg a ndax mu ngi ci sa xolam déet bu ñetteel bi mooy amalun bil jawaari say cër da koy jëfe bu ñu nee julli jot naa tafsir kaay ñu julli ma ne julliwu ma xanaa gëmoo yàlla ma ne ankay déet ngëm ji des na ngëm yàlla gannaaw boo ko tuddee fas ko ci xol bi cër yi dañ koy jëfe mooy da ngay julli da ngay woor da ngay natt azaka boo ko amee boo mënee dem màkka da ngay dem màkka xam ni fenn remplacé wul màkka ba pare jaamu yàlla yi nga ciy def lu baax gaa yi alquran ne laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakin albirru man amana billahi walyawmi alakhiri walmalaikati walkitabi wannabiina wa aata almaala ala hubbihi kon ngëm yàlla day ànd ak jëf lu baax ci jaamu yàlla yi ku yàlla joxati dara ci réew mii milliard ku ko yàlla may laa wax milliard dama jël misaal ci milliard rek waaye nu mu toll bokkal waaye milliard daal ku liggéey ba yàlla may la ko xamal ni milliard du pour benn nit mooy bokk ko ñi nga tane dimbali leen milliard laa wax de man miinuma ko xaw ma ko masuma koo gis masuma dajeeg moom dama koy dégg rek comme ni ngeen koy dégge waaye dama ni milliard ñi ko xam nee nañu bis bu jot ngay dépensé fukki junni pour mu jeex nga teg benn milliard bis bu jot nga lekk ci fukki junni ñi ko xam nee nañu juróom-ñaar fukki at lay am soog a jeex ñi ko xam laa wax nag man xaw ma ko kon ku yàlla joxati dara laa bëgg a wax ku yàlla joxati dara pour sa ngëm yàlla mat ñi nga tane dee leen dimbali nee naa nañu bàyyi ñu ne ci caaxaan mi di baatare xaalis ñun conférenciers yi ñu leen di bëgg a rey déedéet ki dem ci caaxaan xam na ni la mu dem araam na xaalis ba muy baatare xam na ni fi mu koy def araam na xam nga kooku luñ ko war a def mooy ñaanal ko yàlla yàlla génne ko ci caaxaan xam nga ku ñu war a waxal mooy ki génn këram di dem ci gàmm gu tafsir gay di def wecceeku ñeenti junni def ko ay 2000 ni sama soppe bi tey dinaa ko bégal te ba muy génn këram mu ngi bàyyi fereeram wala dëkkandoom boo xam ni taalul ndogu te ñàkk taal ndogu la ñàkk dépense la nga romb koog ñeenti junni sarax ko tafsir amoo yàlla bala ngay sarax tafsir lijjantil bala ngay sarax tafsir laa ni wa andir ashirataka al aqrabina l'islaam yàlla ni yonent bi bala nga laax jaay laax lekk ki nga dem dal te amul dépense rek leen am ba pare moo xam yéen bokk moo xam bokk leen bu dépense ba rek ba pare boo desee sarax dem sarax tafsir boo desewul sarax dem déglu yàlla am yàlla ngëm yàlla gannaaw bu ko la min tuddee xol bi fas ko cër yi jëfe ko mais da ngay gëm ni yàlla benn buur la gars yi gars yi allahu ahadun yàlla kenn rek la de xool leen li ñu yàlla defal ndax am na ku ko man ma damay gàttal wax ji ndax waxtu wee tax kii doog a juddu yaayam jël ween wi jox ko ku ko xamal kepp liir bi doog a juddu laa ni ku ko xamal ni ween dañ koy kepp bu la yàlla bàyyi woon rek jàngalu la nu ñuy keppe nga ni yàmbalang rek ŋaang di nga xam kepp waaye bu la sa yaay di jox ween wi rek suñu borom naan la keppal ma ni ma dem mais kan moo xamal liir bi ni boo boo keppee da ngaa war a wanaasu mooy dangay muucu danga war a muucu dangay tiire boo keppee ween da ngay muucu ku koy jàngal liir laa ni bu yàlla yi woon sa yaay di la jàngal muucu kañ lay mokk waxumam xale buy doog a waaye ñun mag ñii rek ku fi bëgg a jàngale muucu noo koy jàngale ay dara ma dem bu ñetteel bi mooy li muucu di jafe-jafe moo tane wanaasu kan moo jàngal xale bi ni bu gémmiñ gi fee see daa war a wanaasu du yàlla waaw bu ñu yàlla bàyyi woon comme ni mu ñu bàyyeeg ñamdu ñamdu bu yomb mi nga xamante ni xale bu am ñaari at baqate yi génn yaay ji di ko jàngal ñamdu lu ne lay daj day jàpp bakket mi naan ko neel feeb xale bi naan feeb mu naan ko neel feeb bi naan feeb laa wax kon wa allamaka maa lam takun taalamu wa kaana fadlullahi alayka azima koo jaamu ku dul yàlla bàyyi nga ka nga war a jaamu yàlla ne maa la xamal loo xamul woon wa kaana masul deñ fadlullahi ngëneelu yàlla aziman di màgg alayka ci yow doomu aadama ndax fi ma jaar ak yow kenn jaaru faak yow foo soxlaa problème fu mu war a amee rek man yàlla rek le naa ko sans bruit sans coow kon nga gëm yàlla gaa yi nga gëm malaaka yi yàlla am na ay ndaw yu tuddi malaaka Sénégal nag neexul waxe nee naa leen malaaka wàccatul ci nit malaaka léegi dina dem rek dina wàcc fii ñu toog nii bu dee ñépp muuru nañu awra feeñu laani malaaka yaa ngi ñu wër escorté ñu bu fekkee nag ay boppa ngi feeñ ak ay awray jigéen malaaka yi duñu ñëw ndax amuñu droit gis loolu waaye kenn du leen gis guddik laylatul qadri malaaka yi dinañu dugg ci jàkka yi di siyaar waaye kenn du leen gis benn malaaka rek la gis ba tey te ku ko gis doo ko nettali malakul mawti la kër gu mu dugg bu génnee nga dégg wayaayooy te ka ko gis du ko nettali ndax dootul yëngu yàlla ne qul yatawafaakum malakul mawti alladi wukkila bikum summa ila rabbikum turjauna walaw tara id almujrimuna naakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna wa samicna farjicna nacmal saalihan inna muuqinuna koo dugg néegam daraam yëngootul laa ni daraam yëngootul nga yëngal yéen a dara yëngootul xol bi ni tekk yëngootul te montre bi taxaw naan tak tak tak tak nga yëngal ko moom daraam yënguwul mais li mu takk dara taxawu ci xamal ni malakul mawtee fa jaar nga gëm téere yi jullit pour sa ngëm yàlla mat dangay ngay gëm ni yàlla mu wàcce na 104 téere ñeent ci gën a siiw tawreet bi wàcc Moussa linjiil ci yonent si yàlla Iisaa zabuur ci daawuda suuf ibrahima ay journaux la nga gëm ni alquran nag mooy téere jullit moo waraw atte alquran du téere problème ni ñu ko jàppe rek Sénégal daal ñun daal li ñu jàpp boog mooy alxuraan daal bu ma amee problème daal woo woo woo Mansour mu ànd ak i taalibeem ñu jàngal ma alxuraan ngir problème man na ko de waaye loolu taxu ko wàcc xam nga lu tax a wàcc alquran mooy fiihi naba'u ma kaana qablakum wa xabaru ma baadakum wa huwa alfaslu laysa bilhazli alquran moo ñuy wax nu ñuy doxe wax ñu nu ñuy lekke wax ñu nu ñuy jëflante suñu biir kon nga jéem koo xam yow miy seetaan télé bi te yàlla dogal mënoo jàng alquran sax dëgg dëglul ma baaxe la noo yonent bi baaxe nabi nii yow mi nga xam ne ci sa ndaw mënoo woon a liir am nga tiyaaba ci alxuraan ban tiyaaba fexeel ba boo xëyee wala bis bu jot nga am njàpp am sa kaamil sa kër boo amee sa kaamil sa kër amee njàpp nga tijji kaamil bi rek di xool xool rek alxuraan moom xool rek xool manoo jàng yow jéem nga jéem jéem jéem jéem jéem manoo fexe ba mën a liir del ji rek di xool boo xoolee ba mu yàgg rek nga walbati xool ba mu yàgg nga walbati xool ba mu yàgg nga wëlbati yàlla fay la tiyaaba beneen téere bu doon alxuraan mën na loolu waaye def ci bibliothèque bi rek bu pëndee nga fomp doo ko xool doo ko lijjanti warusuli ngëm yàlla day ànd ak nga gëm yonent yi boo nangulee yonent yàlla Muhammad ak yónnentam weddi yonent yàlla Insa ak yonentam sa ngëm yàlla matul ni nga gëmee Muhammad ngay gëmee Moussa gëm Insa gëm Daawuda gëm Yuusufa gëm Yunusa laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli jullit du tàggatle gars waaye nag nañu jëlaat foofu benn bind ni nga gëmee yonent sa yonent Muhammad noonu ngay gëmee yeneen yonent yi waaye ni nga nangule sa sëriñ gëm ko noonu ngay nangule sëriñu keneen bu kenn tooñ sëriñu kenn yàlla dogal na ma am sëriñ xool naa ci sëriñ si am na ci ñoo xam ne léeg-léeg ñu fecc am na ñoo xam ne ñoom du ñu fecc man ma tànn ku dul fecc shérif maa mi tànn kuy fecc waaye waaye bu ma ko xas léeg-léeg nga gis nit xeeb ko defe ni ci gaa yi la fekk du ca gaaya léeg-léeg nga gis nit naw ko defe ni ci gaa yi la fekk du ca gaaya léeg-léeg nga gis nit xeeb ko defe ni àggul fekk mooy jiite gaaya kon ni nga nanguli sa sëriñ may yi ko yàlla def ak respect bi nga ko jox defal ko keneen ak sëriñam jàmm am ci réew mi maa ngi dem de ñaar rek ma dese ma dem ci yonent bi mooy nga gëm yawmil aaxar mooy yawmul xiyaam bis sa ngi ñëw bu ñuy wax yawmal xiyaam foofu ñépp a fayam maa ngi lay bëgg a nettali benn xale asmaa yi moo ko nettali asmaa yi ne kuntu atuufu bilkaabati fi laylatin muqmiratin fa samictu sawtan fattabactu sawta fa idan ana bichaabin xusnu darifin tacalaqa bistaari alkaabati wa huwa yaqulu naamat aluyun wa gaarat annujum القيوم وأنت الملك الحي القيوم وقد غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليها عرسها وعجابها وبابك مفتوح للسائلين فأنا سالك ببابك مذنبا فقيرا مسكينا أسيرا جئت أنتظر رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين yowm alxiyaam laa lay bëgg a nettali asmaini damay wër kaaba gi ci guddi gu lëndëm naan nit ñaa ngi nelaw biddéew yi suux nañu yow yàlla yow doo nelaw buur yépp tëj nañ seeni bunt seeni arme téye seeni arme yi téye seeni arme taxaw fa yow nga tijji sa bunt naan ku may ñaan ma may la maa ngi nii nag yow rek laa yaakaar gi la ñaan nee na bi may wër kaaba gi maa ngi wërandoo benn xale muy wax baat yooyu nee na xale bi dem ba yàgg yaram wi tànk rek mu yuuxu naamatil uyuun wa gaaratin nujuum wa anta almaliku alxayu alqayuum wa qad galaqat almuluuku abwaabaha wa aqaamat alayha xirsaha wa xijaabuha wa baabuka maftuuxun lissaa'iliin fa ana saalikun bibaabika miskiinan faqiiran jiitu antadiru raxmataka yaa arxama arraahimiina yaa rabbal aalamiin asma'iini may wërandoo xale bi ba yàgg xale bi yuuxu daanu nee na lëndëmu kaaba gi ak lëndëmu a guddi gi tax xàmmeewuma xale bi mais bi lëndëm gi wàññi rek ma jege xale bi xool ko nee na ay yuuxoom ak xëmam tuur sama rangooñ sama dal ci kawam rek xale bi yeewu ni ma man alladi shagalani an dikri mawlaaya man alladi shagalani an dikri mawlaaya kan mooy dox sama digganteeg sama boroom asmaa yi ne ma ne ko anal asmaa yi man la asmaa yi xale bi xulli ay bëtam xool ma nee na ma xàmmee xale bi ndekete zeynul abidin la surtout Fatima toog sayyiduna Muhammad nee na ma ni ko eh eh yow man xiyaam laay nettali de yow yaa sayidi ma hada albuka wa ma hada aljada wa anta min ahli bayti nubuwa wa maadini risala alaysa allahu yaqulu innama yuridu allahu li yudhiba ankum rijsa ahli albayti looy saalit looy jooy xanaa bokkoo kër yonent bi asan di sa baay fatima jur ko fatima muhammad jur ko Assane di ca baay Alioune jur ko Alioune Abu Talib jur ko Abu Talib Abdul Muttalib jur ko ngay saalit saalit gii lu ko fi lu ko fi jar lu ko fi jar xale bi ni ma eh eh eh hayhaata hayhaata inna allaha taala xalaqa aljannata liman ataahu walaw kaana abdan xabashiyan wa xalaqa annaara liman asaahu walaw kaana malikan quraychiyan amma samicta qawluhu taala fa ida nufiqa fi ssuuri fala ansaaba baynahum yawmaidin wala yatasaaluuna doon doomu naa am Muhammad amul euh, taxul su su ëllëgee suñu borom jël ma rek yóbbu àjjana yàlla daa bind àjjana pour ku ko topp donte jaam bu bokk Éthiopie la bind safara pour ku ko mooy donte buur bu yonent bi doon sa maam la xanaa déggoo yàlla ni bés ngi ñëw bu ñuy wax yawmal qiyaam su bis ba ñëwee askan du fa am foofu kenn du xam kenn xam nga lu fa am mooy ku jaamu yàlla muy juróom. bu juróom-benneel bi mooy dangay gëm alxadar lu yàlla dogal sërif da koy nangu bu ñu doon nangu dogal rekk réew mi neex waaye bu ñu ko nangu buur bi dafa ànd ak taalibeem di wàcc oto bi taalibe bi di ko tëjal bunt bi képp baaraam bi baaraam bi dagg dal fële deret ji sotti buur bi ni yàpp taalibe bi ni ko mais sëriñ lii jarul yàpp baaraam bu dagg dafa jar ya dafa gën ci yow mu ne ko waaye xanaa da nga yabaate yow boo ma rawoon dinañ la fi indi nga doon sama taalibe ba nga may waar yow dagg sama baaraam doyul nga naan ma dafa gën yóbbu ko ni nañ ko tëj ci kaso bi pour mu gàtt bi muy ñëw ñu koy tëj ci kaso bi moom taalibe bi mu ni leen nee leen buur merewu ma ko tëj gi ma tëj dafa gën ci man moo tax mu tëj ma bu gënul woon du ma tëj ñu ñëw wax loolu buur buur ni bàyyi leen ko ba mu dee ci kaso bi dagg na sama baaraam naan dafa gën ma tëj ko mu ni dafa gën bàyyi leen ko ba xam kaso beeg biti bi lu gën jamonoy dox xale baa ngi ci kaso bi buur biy faj loxoom xale baa ngi ci kaso bi buur biy faj loxoom ba yàlla doxal loxo buur bi wér sëriñ bi loxoom wér bi loxo bi wéree muy doxantu bi muy doxantu julli fajar di doxantu ay ponkal jàpp ko yeew ko mu ni fu ma jëm ñu ni ko bu àggee di nga xam foo jëm fu mu jëm ndekete ndar la jëm ngeen baal ma damay joxe misaal waxuñu ndar ci téere yi waaye dama lay jox misaal pour nga dégg ndar la jëm lu muy wuti ndar ndekete buuru ndar moom la sëriñam ni fokk nga def sarax ci géej gi pour man fee yàgg te sarax bi góor gu mel noonu la góor gi day doon góor guy sol mbaxane mu soon takk ay lunettes sol garaam bu bu ñu jàpp góor gi yeew yàgg na fi de lii ngeen dégg nii Sénégal bu élection di jot ñu naan gaa yi dañuy wër puune yi yàgg na fi de gisoo bu élection jotee puune yëpp dañuy réeri puune yi ñu baal ma ma siyaar leen yal nañ fi yàgg te ànd ak wér sarax yi gaa yi di laaj yàgg na fi de nee naa laaj saraxu puune nag amuñu xel manoon nañu sax di laaj saraxu leneen ndax puune moom daa bariwul ñu jàpp buur bi ñu jàpp sëriñ bi yóbbu buur bi di ko xool ni leen bii lañ ma waxoon de woowi sëriñ bi mu ñëw sëriñ bi ñëw xool daal ni sarax bi bii la de wool leen ma sëriñ bi sëriñ bi xool ni sarax bi bii la di xool ni tekki leen ko ñu tekki ko muy xool ba mu yàgg gis baaraam bu dagg bi mu ni oh ñu ni lu xew sëriñ mu ni kii mënul doon saraxu géej gi daa am laago baaraam bi dafa dagg nu ñuy def sëriñ mu ni bàyyi leen ko mu dem te wuti keneen ñu bàyyi ko mu daw rek jubali taara ja tijji taalibe bi ni ko mënu mën wax da nga am xam taalibe bi ni ko sëriñ lu fi ndi waxi xam-xam mu nettali ko fi mu jaar ba ñu tëj ko taalibe bi ni ko eh eh sëriñ billaahi wallaahi tallaahi xaw ma dara yaa may jàngal mais yaa ma jàngal asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum yaa ma jàngal ni yàlla ne léeg-léeg nga bañ mbir fekk moo gën ci yow léeg-léeg nga bëgg fekk baaxul ci yow sëriñ sa baaraam bii bu daggee te tayuma ko xam nga ni yàlla la neex te am na lu yàlla namm rek laa gëmoon waaye jubluwuma ci dagg sa baaraam sëriñ bi ni ko yow nag bi ñu lay tëj da nga ni dafa gën lu tax mu ni ko sëriñ foo mas di dox ñooy ànd maa lay gunge te maag yow a nuroo yaay sama idol bu mën a gunge woon keroog ci fajar gi bu ñuy jàpp ñun ñaar la ñuy jàpp te bu ñu àggee xool sa baaraam mu dagg sama bos daggul kon maay dem géej kon tëj gi nga ma tëj ba gunge jiwu ma la dafa gën ci man looloo taxoon ma ni dafa gën xaw ma woon nag nu muy mujje mais xam naa ne lu suñu borom lu mu dogal rek xam naa ni dafa gën yàlla moo mu di dogal nag moo dogal drapeau li waawul hamdi mu jox ko seen soppe ba baayu Fatima ak Roqaya Sayyidina Muhammad doomu Abdoulaye Diak Amina maamu Cheikhuna Tijaani ya laytani kuntu dari ñuy suivre émission bi xam naa ni ngaay nga may fekk talaata jii di ñëw ndax waxtu wi jeex na. yaa laytani kuntu dari. waaye bala may joxe micro bi rek joxante leen loxo ku nekk ni moroomam loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal. wal abar ibnul abar. waaye na ku ne ci mbooloo mi joxal loxo ki nga dendal ne ko loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal. wal abar ibnul abar. maa ngi bëgg a firi mbindum Cheikh na Cheikh Saad bu doomi bu am ak Fadal jag maamin taalibal xayaari jayli muxtaar wal abar ibnul abar ay waay Chérif ba ca gànnaar maamu Chérif Abdoul Aziz Aydara baayu Cheikh Talibu yaa ngi joobe maamam rasulillahi wal abar ibnul abar cheikh na cheikh Saadu ne sama maam ku baax la doomu ku baax la. ibnul abar ibnul abar. mooy lim ay maamam koo ci tudd rek ku baax la ku baax la. barun ila abil bashar. cheikh na cheikh Saad bu ne booy dem ba maam Adama sama maam ñëpp ma baax. musalsalan mi man saja. sama maam boo ko toppee ba ca maam Adama ñëpp a baax. tuba li ali haramayni cheikh na cheikh saat bu jekki na ba mu yàgg mel ni ku ñeewaa màkkaak medinatul munawwara tuubaali ali haramayni ma ni ku sopp yonent si yàlla muhammad defal nii sa loxo tuuba tuubaali ali haramayni cheikh na cheikh saat bu nee texe ñeel nañu dëkk màkkaak medinatul munawwara tuubaali ali haramayni ay waay yéen waa màkkaak medina texe ngeen ba góor ga ca sa ceem gaar lu mu wax rasulillahi tabban wa suxal lahu wal badru shafiuna ay waay ku ne somonte bëgg sayid alhaaji malik baa nga bëgg rasulillahi tabban wa suxal lahu wal badru shafiuna sharif sama alhaaji malik a ngi joobe samaam rasulillahi ربا وصحا له والبدر جافعنا كاب مام سيدي عاج مالك ني تبا وسحقا لهم والبدر شافعنا تبا وسحقا له والبدر شافعنا جمال داكور عشر خصال حوادون البريات فكل لا بقى خميان فكل لم يحتلم ابدا استوب يومي بقى خم نبي سمام سيدي عاج مالك ني يومي بقى خم نبي لاني sa maam alaaji Malick baayu Serigne Babacar maamu Serigne Moustapha Sy borom mustarsidina wal mustarsidaati ne maam alaaji Malick lam yaxtalim xattun abadan ku lam yaxtalim abadan ey fukka ngi nii sa maam rek la ko yàlla defal Chérif Maami Aydara lam yaxtalim abadan lam yaxtalim abadan xamoo ne mu tëdd di gént dajeeg jigéen sa maam rek la yàlla aar ci loolu léeg-léeg nga dégg ku ni sama faru rab bi daf ma seet si biig léeg-léeg nga dégg ku ni sama ndawas rab si daf ma seet si biig waaye samaam sayiduna muhammad samaam alaaji malik nee moom loolu du ko dal moom rasulillahi xul maa law dulalun déggal xoola bu ma taxawee ni sama sayid alaaji malik mooy wax de dama lay jox misaal bu ma taxawee ni sama taqandeer day génn luy génne takkandeer bi nee ma projecteur bi moo ma gën a leer moo tax mooy génne sama takkandeer sama mbokk ci woon xam nga lu tax moom bu génnee projecteur bi ngay gis takkandeeram ndax moo gën a leer projecteur moom rasulillahi wa ma tasaaba xayru saadaati bu dee digg bëccëg rasulillahi bu génnee ci digg jant moom rasulillahi nga gis takkandeeru jant bi ndax moo gën a leer jant moom rasulillahi tanaamu ayna nabiyullahi sayyiduna wa ma tasaaba doomu Abdoulaye ja doomu Abdul Mutalib ja doomu Hashim doomu Abdu Manaaf Xusay Kilaab Murnata Kaab Samam Rasulillahi. wa maa tasaabada xayru saadaati. mooy xamee ne nit ki sonn na mbaa gëmmentu na wóbbali nii boo sonnee nii moo tax ñu jàngaale ko na bi ne kuy wóbbali defal nii ndax 32 daan ci biti rafetul. boo jaalee nag boo maytuwul yuut génn te doo ko tey kon nii bu yuut naree génn nga dugalaale ko bu loxo bi jàppee nga jël bii def ko nii waa Wassoumone à suivre mardi à partir de vingt heures ñu daje ngaay Chérif kàddu gaa ngi noonu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barakallahu <laughs> euh, toog leen ñu ñaan. ñu toog ñu toog. ñu ñaan balaa kenn jóg ñu xaar. am na kilifa yuy jël kàddu waaw ñu jël kàddu ñu ñaan. wax nañu ni imaam mu ngi fi imaam dinañ ko jox kàddu ñaari minutes. préfet mu ngi fi. ñu jox ko kàddu mu wax ci turu commune bépp département beeg région bi yépp ñu jox ko kàddu moom it mu sànni kàddu bu ko defee shérif tëj ñu ñaan. ku am aajo nag nga xaar ku am ajo laa wax ku am ajo booy bëgg mu faju nga toog xaar dina am ñaan goo xamante ne dañ ko ñaan te ku fi jóge incha allah sa aajo faju or weeru koor gi beneen bi ajaa am sa satu gay jërëjëfati ci ñi nga xamante ni ñooy sponsoriser émission bi jàppale ñu ànd ak ñun ci mbooloo mi ñëw nañ ci waa Nestlé ki leen fi teewal muy kan muy Mourtala Diaw mu ngi fi teew waaye fort délégation bu Kirène Kirène nag Mbuur la Kirène nag Somone la Kirène Ngapparu la nee naa leen sarax yëpp saraxu ndox ci ëpp tuyaaba ndax fu yàlla tuddee àjjana rek tudd na fa ndox jannaatun tajri min taxti ah kon nag ñoomi tamit ki leen jiite muy monsieur Issa Ndiaye moom i tamit fa tabarakallahu mu ngi fi yàlla na yàlla jàppale leen taxaw bii ñuy taxawu lislaam bi yal na yàlla taxawu leen weer wi yal nañu yàlla nangul lépp luñ ci jaamu yàlla mu néew mu bëri léegi nag suñu imaam la ñuy jox kàddu mu sànni bu ñu paree suñu préfet nga xamante ni tey moom tamit moo ñu yilif fa tabaarakallaahu ñu jox ko kàddu bu nu paree ñu bokk ñaan yàlla na yàlla nangu lépp tafsir yal na la yàlla bàyyi nga ànd ak wér ànd ak tal ambassadeuru alquranul karim nga ambassadeur u yonent bi nga sallallahu alayhi wa la may wax Sénégal ci boppam ñoo la jël duggal la ci seen xol ñoo la bëggal seen bopp ku ko seq ak yow rek Sénégal la ko seqal yal na yàlla barkeel lépp yal na yàlla aar yal yàlla sàmm bi jaay rasulillahi kon ñu jox kàddu gi imaam suñu wayjur wi imaam Ibrahima Faye mooy imaamu Ngapparu macha allahu mbir mi diggante Ngapparu Somone Mbuur Sali jullit yépp a ko bokk mbiru jullit yi la fa tabaarakallaahu kon dafay sànni kàddu ci turu aimma yépp ak ci turu lislaam bi bu daaneelee insha allahu ñu jox préfet mu sànni kàddu bu daaneelee imaamu somon ñu jox ko kàddu nag mu tëj kàddu gi ndax gan yi ay ganam lañu bu àggee ñu soog a ñaan insha allah bismillah góor gi fay alhamdulillahi rabbil alamin alamin bokki jullit yi fi teew yépp rawatina bokki soman alaaji tafsir gay bariwut lu suñu jëmm yi gisante waaye ñi bëgg baax ñépp ak mboolem ñi baax ñi ngi wërante ñi ngi seetante maa ngi laa yëgal fii nga toog ak mboolem ku nuy dégg booy limati say soppi boole ma ci man booy li ma ci boole ma ci man nag dama bokk ci ñi nga xam ne ñaari yëf dañ ma ko aaye waaye bu dul woon loolu ma am lu ma def wax loo xamul dañ ma ko tere loo xam wax ko dañ ma ko tere ngor meyu ko diine meyu ma ko kon alhamdulilahi rabbil alamina waaw waa Soman lii bu fekkonte ni bii dund naa ba dee te fekkewuma lu mel nii dégguma lu mel nii fu ma jëm kon alhamdulilahi rabbil alamin lii yal na yàgg sëñ Tafsir man dama daa wax ne suñu mag ñi wax naa leen ne man daal neexul ba neexul waaye bu ma doon ab yónnante man kenn yónniwu ma si mag ñi si gune yi lañ ma yónni wax naa ñu it ne na il faut que nu sens suñu tenue yi nu daan sol ñu ne Baay Ibrahima bu ñuy sens tenue yi lan la nuy sol mu ne mbuba yi dañ koy def dañ koy def njub mbax na yeeg musóor yi ñu def ko doylu waaye nag daal yi ñu def ko muñ ku sol mbuba mu mbubaam njub mbaxaneem doylu daal di muñ ren ba déwén foo jaar ñu ne waa jàngale bu fekkee da ngeen di mbooloo ñu ne waaye ñetti jikko yi bu fi jógee Sénégal yàqu bu nit ñi jubul doy lu wuña muñuña fu ñu jëm ku nu mën amee nun kan waaye yow mii de maa ngi ñaan yàlla yal ñépp déglu la waaye bu la ñëpp a dégg loo yal nañu la dégg bu ñu la déggee yal na ko jëfee. léegi nag tafsir jox préfet ku ñuy jox ñu jox ñu jox pour monsieur préfet. waaw. ñu yëkkati kàddu njëkk sant yàlla subhaanahu wa di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin cant gi nag lu ko waral lu tuuti la ndax keroog bi ñu mbokk yi defee délégation seet si ma yëgal ma lii dama defoon cëru jullit muy fas yéene fekke ko yegsi si bokk kook yéen tey su ko sunu borom dogalee dama koy sant bu baax a baax a ndax mënoon na ma koo xañ kon looloo waral cant gi di julli bu baax nag ci yenentaam bu tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa li may njëkk a wax kañ xanaa rëccu yéex gee ñëw ndax xëy na na ma ko nattee woon ak ni mu tëddee dafa xaw a wuute waaye li ma ci jot a fekke ku néew damay wax rek alhamdulilahi rab alamin yal na yàlla suñ borom wéral xam-xam waaye yal na yàlla wéral kàddu ndax xam-xam am ko ak génne ko joxe ko du benn bu la yàlla mayee nga am ko ba pare mën koo joxe dangay sant bu baax ndax li fi oustaz def léegi yéem na ku ne li may faral di wax rekk mooy dama jàpp ni ki gën ci jaam yi mooy oustaz bi jàngale alxuraan ndax bopp boo ko mënee jël ci tuut tànk dugal ci alxuraan te xaroo ko tojoo ko yàlla may na lu mayul kenn kon oustaz yi macha allah ñu ngi leen di sant bu baax di damay faral di wax ni jotaayab jullit jullit moo koy dundal jotaayab jullit soxlawuñ ci carte soxlawuñ ci invitation ndax nit ku ne sab jotaay say mbokk ñoo koy mën a dundal te kii jullit jullit rek mooy mbokkam kon fu ñuy yéeg jotaayab jullit ñun jullit war nañu fexe ba dundal jotaay boobu ngir islaam jóg ca kaw jëm ca kanam yàlla yàlla saxal seen jëf rafetlu nañ seen teewaay rafetlu lañ seen liggéey ñi ngi koy topp di ko gis te di ko dund ak yéen li imaam wax léegi rek moo ci nekk kuy jëf lu baax daal faw ñu baax ñi bëgg la sopp la ànd ak yow ci loolu yàlla na nu yàlla dimbale defal ñu jàmm defal ñu tawfeex sàmmal ñu ñun ñëpp salaamaaleykum jërëjëf monsieur le préfet kon léegi defe naa ni dañuy kontaan nañu léegi imaam a des waaw imaam rek moo des préfet macha allah ñu nit kontaan nañu ndax yéen ay ndey ji cheikh ngeen <laughs> sañu leen a wax ni fii la ñuy dem du ñu dem fële ñépp ngeen jaboote di ngeen dem ci lii di ngeen dem ci leneen donte léeg-léeg ñu yebal leen foo xam ne du leen neex waaye fokk ngeen dem ndax ndey ji seex waaye nag bu ñuy taxawal lii ñu nit di jéem lu ñu man pour jikko yi ak nit ñi sopp yonent bi ngeen ñëw di ko teewe kon ñu nit amal nañ leen jërëjëf ndax yéen ñu jaboote te njaboot bu dee def kilifaam wan ko ni ko yëg naa li ngay def xolam dina sedd yal na la yàlla sàmm noonu lañ ko ñaanale monsieur le maire noonu lañ ko ñaanale ba ca gouverneur région bi ba ci ministre ba ci président de la république yal na yàlla fay leen sant bu baax waa sapeur pompier ñoom it yàlla sàmm leen aar leen ani imaam bismillah maa ngeen ñi fi teew ñëpp di siyaara ñëpp di balu àq ñëpp di ñaanal ñëpp di dalal ñëpp jàmm bi ummati rasul sallallahu alayhi wa euh, dëkk ci nuyoo bi Chérif Aïdara mi nga xam ne moo kulóor jataay bi ak sëriñ bi tafsir teg sa suñu mag jële sëñ ibrahim Fay kooku bu waxee bu waxoon rek bàyyi ah tafsir man suma mag la bu waxoon bàyyi rek man toujours bu nu lajee ci wax dama ko naan yaay wax mais man c'est pas la peine may wax dëggal dëggal dëggal ñun suñu xol sedd na al yàlla nañu ko teewe sa kóor yi déwén yi déwén yi déwén ya bi urmati rasulullah sallallahu alayhi wa yàlla bàyyi leen fi yokk seen xel yokk seen xam-xam yokk fan yi yokk sutura yëpp ñu ngi ñaanal ñëpp ñëpp xale yi jàng yal na leen yàlla may bu ci defal li nga bëgg ci yal na yàlla defal lëgal moo ko xam yal na leen ko defal defal nu ko bi urmati rasulillahi sallallahu ah, maa ngi emale foofu wax ji ndax xayru xawli daal maa xalla wa dalla xale yu góor yi def lii manoon nañaa def beneen façon def beneen invitation bu ñu neexoon baala ngi fi leneen la nga fi waaye ña xool ne tafsir lañu fi bëgg indi mën nañu moo gën bon ñoom kontaan nañu ci ñoom lool lool jërëjëf jëf jërëjëf déwén na ti déwén na ti déwén na ti asalaamaaleykum ah. gërëm nañ ñëpp baarakallah ñëpp ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf kon nag tafsir baarakallahu mel na ni àgg na nag fa tabaarakallaahu dañuy santaat rek Omar Ngalla Diop ndax mbir mi yàlla mu ngi ko dogale woon ci tàkku tàkkusaanu nabi bu waa sopp nabi mooy ñii toog yàlla boole woon ñu ak ñoom ñu leen di defal tàkkusaan kere dañu tàmbali waxtaan wi rek ñu tàmbali daanu ñu ne ma àggaleel ma ni leen bu fi nit deewee maay doon responsable bi da di bàyyi incha allah bu ma demee dinaa ñaan shérif maam yi defe naa noonu laa ko waxe woon ak waa 2 bu fekkee may nañ ñu ko ci koor gi ñeenti gàmm yi ñu war a def ci dëkk yi ñu indi fii benn def ko fi ngir mottali seen yéene loolu moo sabab jotaay bi fa tabaarakallaahu sopp na bi bu ñoom day assu faal macha allahu ak jigéen ñi yépp waaye bi mu jotee man ni ma xamee pasteefu Omar Ngalla ak dogoom moo tax moom laa woo ni ko demal somun nga waxtaan ak ñoom la ñu waxoon waa 2S may nañ ñu ko Chérif Maami may nañ ñu ko incha allah dinañ fa ñëw mooy talaata ji jëkk ci koor gi incha allah fa lañ koy defe si waaye Omar Ngalla daw na guddi daw na bëccëg bàyyi na liggéeyam def na lépp woo naa ko sax ni ko bu lépp lu ci war ci dépense ñun dinañ ko def ndax am na technicien yu fiy ñëw woykat yi ak ñépp fi la ñuy ndogoo làmp yeeg lépp ñun dinañ ko def waaye dani ma seen dërëm du ci dugg waa somoon yépp kenn ku ne yëkkati na alalam jox ma ni nañu ko def ci bis bi ndax du ngeen ñëw di ñu gane ba pare di toggal seen bopp lu ngeen di lekk ak fu ngeen di nekk moo tax bi ñu ñëwee ñi fi yendu si bari na ñi fi ñëw ci subaak léegi bari na ba ci technicien yi fa tabaarakallaahu dara manquéwul pour ngeen xam ni lépp lu ngeen ko joxoon pour teraanga pour équipe bi doon def si lii lépp def na ko ci te yàlla tax kon nag ñu ñaanal alaaji Njaay ñaanal soxnaam Mareem sant bu baax Chérif Maami Aydara yàlla ñu fekke déwén koor gi yàlla nañ ko yàlla nangul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lii ko tafsir waxee doonu rek la tàllal leen loxo yi fatiha salaatul fatiha allahumma anzil alayna fi hadihi saa min xayrika wa barakatika ma anzalta ala ibadika wa awliyaika wa xasasta bihi ahibaka wa asfiyaika wa aziqna bardaafika wa xalaawata magfiratika wansur alayna rahmataka allati wasiata kulla shay warzuqna minka mahabatan wa qabulan wa tawbatan nasuuxan wa inaabatan wa ijaabatan wa caafiyatan tacmu alxaadiriin walgaa'ibiina al axyaai walmayitiina bi raxmatika yaa arxama arraaximiin yaa rabbal aalamiin allahuma la tuxijibna mima saadnaaka amiin yaa rabbi wala taxrimna fi ma rajawnaak wa axfadna fi lmaxyaai walmamaati innaka mujibu daawaat amiin yaa rabbi bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhim sibtayni alaamil huda wa bi saxbihi wattaabiciina lahum fa hum saadaatuna ahlul makaarimi wannada ba déwén am nañ ko yàlla defal ku am jëleen jër jëlal maa ngi ci yonan ba